nanu bamtu nettali bi weesu benn lu tax nit ñi wax aarona mu defaral leen ab yàlla bu leen jiite ndaxte nit ñi gëmatuñu woon yàlla bi musaa toogee ñeent fukki fan ci kaw tund wi ci la nit ñi tàmbalee ragal ne yàlla wàcc na leen ñaar ndax mën ngeen lim fukki ndigal yi yàlla yi benn bul am yeneen yàlla judul man ñaar bul def benn xërëm ngir jaamu ko ñett bul tudd turu yàlla cig neen ñeent nanga noppalu ci bësu noflaay bi def ko bës bu sel juróom fonkal sa ndey ak sa baay juróom benn bul boom juróom ñaar bul njaaloo juróom ñett bul sàcc juróom ñeent bul seede lu dul dëgg fukk bul xemem sa alalu moroom ñett lu tax yàlla wàccee fukki ndigal yi yàlla wàccee na fukki ndigal yi ngir won nit ñi li mu bëgg ci ñoom ndigal yi dañuy wone itam ne mënuñu def lépp li yàlla bëgg ndigal ndigali yàlla yi ñoo ñuy won ne lañu ñeent ndax mën nañu mucc sunu toppee fukki ndigal yi waaw su fekkee mën nañu topp fukki ndigal yi bés bu nekk waaye nit moom bàkkaarkat la mënul topp ndigal yépp juróom lu tax yàlla sant waa Israyil ñu samp mbaaru màggalukaay bi yàlla bëggoon na nit ñi xam ne sorewu leen yàlla xamoon na ne nit ñi mënuñu topp fukki ndigalam yi te duñu moy moo tax yàlla jox leen mbaaru màggalukaay bi fu ñu koy jaamoo ngir mu baal leen seeni bàkkaar juróom ndax bu nit saraxe am mala dina fay bàkkaaram yépp ba mu mat déedéet deewuk bàkkaarkat bi mooy fay bàkkaaram deretu mala dafay feyandi bàkkaar yi ba gu mat gi ñëw juróom bu sëriñ bu mag bi wisaan deretu mala ca kaw jégalukaay bi loolu lan la daan wone dafa daan wone ne nit ñi xam nañu ne bàkkaarkat lañu te tuub nañu deret ji dafa daan sàng seeni bàkkaar diirub at juróom ñett sarax yi nit ñi daan def lan lañuy won ci mbirum yàlla sarax yooyu wone nañu ne bàkkaar dañu koy fay ngir jot mbaal